nangu vraiment koo xam ne euh, nekkut PDS mënuñu nangu koo xam ne euh, faxas la ñu nangu koo xam ne dafa trahir parti bi en 2012 ñu koy teg à la tête de notre UJTL loolu moom c'est inacceptable bu ñu ko nangu léegi nag euh, génn na daan na Sëñ Fallou dafa jël 300 millions ci Macky Sall Sëñ Fallou Mbacké dafa ànd ak Macky Sall dem Mauritanie donc loolu te moo tax loolu xam nañu loolu moom nekkut nekkul loo xam ne am na sëñ Fallou Mbacké le parti parti bi moom moo moom parce que maamam en 74 ku ne moo contribué woon 3 euh, parti wax na ko 50 pour cent parti bi sëñ Fallou moom 50 na yeex bu ba nekkul fi Karim Wade mooy borom kon sëñ Fallou Mbacké mënut a moom parti ba pare di ko bàyyi wala di ko xeex donc ce qui est sûr et mooy que ne koo xam ne Macky Sall moo ko buux biir mu ñu jaxase muy muy muy muy Bamba Thioune xam ne élément wu faxas la parce que loolu histoire euh, mën na ko mën na ko dëggal ndax ba ki de moo njaay rek euh, ci élection locale dafa boycotté élection wu législative yi ñu ngoon ci liste faxas donc kooku bu dikkee dañu jox leçon de morale bu dikkee di jaxase parti bi kon loolu ñu duñu ko nangu man en tant que secrétaire général du tutelle de Mbacké ci fan muy jóg jiite fédération bu Mbacké man la ma koy taxaw di ko xeex wax moo ko wax Abdoulaye Diaye waxu ko justeel waxu ko kenn waxu ko moom moo ñoo waxal boppam dootuñ nangu kenn di ko di ko offensé ku ko defati si suñuy néew ngay jaar kon bu boobaa loolu maa ngi koy wax Ablaye Wade na réglé na réglé. na réglé gone gone yi nga xam ne matuñu am tudd matuñum tabaski tab dikk fi bëgg di def yoo xam ne kenn du ko nangu dootuñ ko nangu ñun nag ñoom ñoom fii ay pour ay dent pour dent am na si loo xam ne duñ ko nangu parce que duñ liggéey ba heure bi ñu bëgg xajamal suñu liggéey ñun sëñ Fallou lañ reconnaître moom lañ xam moom la ñuy àndal feneen sax bu ko bu demoon feneen fu mu demoon ñun moom la ñu parce que moo légitimité liste boobu ñuy wax ki nekk seen ginnaaw nga xam ne moom moo ñëwoon fii di ay pourcentage pourcentage rek lay def moo fi yéen journaliste fi la leen fekk yéen journaliste yi fi leen leen fekk 2012 fi la leen fekk parce que moom moo ne woon day day wut ay kaamil pour Ablaye Wade wàcc ay bax baxaa ñu jox ko 100 millions mu tabax si këram kon bu nekkee fii tey bu nekkee fii tey mooy xaw sax xaw ma sikk sikk sikk mbàkke xaw ma nu mu tudd seex baara doli xaw ma sikk mbàkke moo nekk si ginnaaw gone yi nañu moytu léegi nag sëñ Fallou Mbacke dafay taxaw liste liste bi taxaw mooy doon liste PDS parce que si mun ñu comprendre nag PDS Touba ak Mbacke ñoom ñooy fal député yi te gis nañu député yi ñaare bu ñu leen falee dañu war Ablaye Wade comme Ousmane Ngom ni mu ko defee comme Diagne Fada ni mu ko defee comme euh, euh, euh, Mamadou Lamine Keita tout récemment ni mu ko defee comme comme comme comme Ousmane Dena Ousmane Dena Ndiaye euh, Souleymane comme ces gens-là ni ñu ko defee donc nag euh, pour sécuriser parti moom euh, Sëñ Fallou Mbacké nekk coordinateur département pour mu sécuriser parti bi effectivement dafay laaj liste bi si liste boobu muy mooy liste PDS loolu moom mooy coow li à part ko beneen coow parce que Sëñ Fallou Mbacké nag dañu ko waxaat vraiment dafa jot ñaa koy respecté ñun kay li ñu war a wax mooy Karim Wade ni ko génnee ku ne xam ne dil de Rebeuss boobu noonu ñuy bañ mais loolu am la léegi ñi nga xam ne ñu ngi def jël de réponse boobu noonu a wax ñoom ñu wax ñu nuñ def ba ba ba ba jël sunu candidat génne ko ci anam yoo xam ne képp ko comprendre muy Karim Wade donc xeex bi daal yaakaar loolu moom parti bi si Fall Mbacké wu seen morom kay mooy ñu génne Karim Wade ci génne boo xam ne neexul kenn génne boo xam ne nekkul yoon donc ñun loolu la ñuy xeex loolu moo nekkul mais nag kantaan nag ab ab ab ab ab de faxas ñëw jox naka sunu noonu loolu moom mun ñu koo nangu tey mun ñu koo nangu ëllëg